mooy dafa am benn sujet boo xam ne ñu ngi koy waxtaane boobu ba tey muy dialogue bi nga xam ne président wax na ko te ñu wax leen ni dialogue bi de bu dul woon ak respect bi ñu yoreel sénégalais yi duñ ci wax parce que bii xanaa mooy doon ñeenteelu dialogue boo xam ne ñun fekk na ci ak Macky Sall ndax 2016 boobu ñu doon wax dialogue pour libérer kenn amoon na dialogue man de demuma woon parce que na wax dëgg yàlla booba la ñu nangu sama conseil départemental. amoon na dialogue boo xam ni ñaar ci ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ yabal muy Benoît Sambou ak Ousmane Badiane ñooñu ne dañ doon dugal dialogue bi rek pour passer parenage bi ñun ñu quitté la table du dialogue daal di dem suñu yoon. am na dialogue boo xam ne boobu moom jël naa ci part ñaar ñii ma séq ñoo doon plénipotentiaire u ànd soxal liggéey. parti bu nekk benn représentant la amoon plénipotentiaire ànd sax a liggéey amoon na ñaari plénipotentiaire kon ñun xam nañ lan la dialogue boobu li ci nekk soxlawul rappeler waaye nag mujjul fenn mujjul fenn du sax queue de poisson parce que queue de poisson mën nañ cee teg ba lu dul benn akki bi nga xam ne bëggoon nañ ko mooy élection wu maire yi ak président de conseil au suffrage direct lu dul loolu gisuñu ko ci dialogue nag dinañ wax ci yan terme lañ koy defee walla ñu wax ci ban forme lañ koy lañ koy defee loolu rek moo indi woon ñun ñu toog di déglu ak itam respecter discipline coalition Yewwi Askan Wi parce que coalition Yewwi Askan Wi ñu ci bëri ñu nag yéen ñoo ko seq dégg ngeen ko rejeté nañ dialogue bi mais coalition Yewwi Askan Wi dans son ensemble mënul woon a rejeté dialogue bi parce que am na kenn kenn ci ñoom koo xam ne dafa nekk ci benn processus de consultation te pareegul te par respect à sa décision ak au nom de la cohésion du groupe dañu bëggoon bàyyi ko ba mu def ay consultation ba pare ñu taxaw jël dialogue delloo ko ko comme ni ma ko waxee léegi ci tubaab ndax dialogue bu stérile la kooku nag ki ko yónnee mënul lu dul ñu delloo ko buubu dialogue am delloo ko ko lu tax ñu ko koy delloo mais dialogue dañu xool contexte ban la ñuy defee dialogue dialogue boo xam ne ñun ki nga xam ne moom la moom la am te dama koy waxaat fii di ko réaffirmer mooy sunu champion mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko yeewi askan wi waruñu am complexe ni Ousmane Sonko mooy seen champion dee Ousmane Sonko non seulement xolu yeewi askan wi la laal mais xelu xolu démo xolu la laal dama ni leen Ousmane Sonko est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise kon su fekkee ni yàlla dogal na mu jël paakaam jam ñu ko ci suñu xol ba pare daal di ni ñu ëmb leen seen xol bu mu wadd jël leen seeni serviet fomp leen seen deret ñëw leen dialogue ak man ah bu boobaa de dina raw la tubaab ba defoon pes ñu ci biir lex ñu jox ko bi ci des ñun dañoo talul dialogue mënuñoo def dialogue contexte bi may ñun ñu def dialogue kii nga xam ni mooy woote dialogue amul légitimité pour woote dialogue pare na huit mois moo ko fi dese te nag ñu ngi koy ñaan ni ko na leeral askan wi parce que askan wi jàmm la ñu bëgg dal la ñu bëgg avancé la ñu bëgg Sénégal perdre na temps ci li nga xam ne moom la ñu nekkee kon ñu ngi ñaan président solennellement mu libérer nit ñi arrêter d'abord siffler la fin de la récréation au niveau de son camp arrêter leen wax leen ni dañu bàyyi dañu bëgg président am troisième mandat nañu bàyyi loolu baaxul c'est malsain ñu ngi koy ñaan mu déterminé wu donc moom warul woote dialogue ñaareel ba ñun suñu toogee di dialoguer détenu yee nga xam ne te loolu dinaa ci dellu si su may wax ci Ousmane Sonko yan détenu il faut ñu def radioscopie wu détenu yan ñoo nekk foofu ca prison ba détenu yooyu man de jomb naa man kenn rek ci ñoom muy Bassirou Diomaye musuma sàllawlu nu sommes en politique mais maman docteur rek lay wax man jomb naa du fond de mu séen ma man ma toog table ak ki nga xam ne tey moo ko tëj kooku man duma ko def kooku bu yeboo woon responsable am dem man maa demul te ndokk ba nga xamee ni damay gërëm waa ànd saxal liggéey parce que ànd nañ ceeg man kon président créé wul benn benn benn condition pour ñu pour ñu dialoguer ak moom beneen point bi nga xam ne dinaa ci ñëw ci congrès bi moo di président heure bu ko neexee mu yóbbu ay sabar grand théâtre ànd ak ay militants waa lan moo tax ñun nawloo wunu ba grand théâtre waruñu fa am droit te moom tabaxu ko man en tant que ministre de la femme organisé naa ba tey grand théâtre dama daan wax président Wade ni ko yow man nga tabaxal grand théâtre parce que xam nga ne xajatuma Sorano xajatuma fenn ak mag fa bi kon tey su ma teree grand théâtre xëy na opposition bee tax mais en tout cas mënuñu fa salteel lu ñu salteelul ñoom nun ne sommes pas kon su fekkee ne da nga nekk ci espace politique bi te amuloo nawle amuloo mbokk xooluloo kenn koo gis ku àndul ak yow kooku mooy nit ku bon ki ànd ak yow mooy nit ku baax kooku xëy na dina am ñu koy nangu mais ñun duñ ko nangu mënuñoo dialoguer ak moom parce que ñun waxuñu lan la ñuy dialoguer te dafa nekk ci position boo xam ni moom buñ ko séenee dañuy jëkk a làq sunuy doom door a seet naka la ñuy jàkkaarloog moom parce que yónneewuñu dara lu baax yónneewuñu dara lu baax ñun police lañu ñu ak moom tribunal lañu ñu ak moom am na ci ñoo xam ne juddu nañ ba heure bii ñu ngi dooree xam police sans compter nag lam ñu lebal lebaluñu dara dara dara dara dara lu tax ñu mën koo wóolu yi fi jot a jaar mooy à chaque fois bu dialogue dee am rek am na lu muy làq ca gannaaw du la wax mukk lan moo nekk ci biir dialogue kon boobu dialogue la koy doyee dialogue wul pour yee pour pour pour pour ne li ñu ñëw leen ñu waxtaan pour ñu seet nu ñuy wàññee njëg yi ndax ménage sonn nañ dialogue wul pour ni ñu am nañ retaar ci njàng bi dialogue wuñu pour ñëw ni université doxatul dialogue pour ñëw ni am na problème ci santé bi dialogue wuñu ba covid bi amee déclaré wu mu woonu mais ñun ñëpp dañoo daw yéen sax ci presse bi am na ñu doon tooñ naan ñii de dañ mel ni dañu yàkkamti woon màkki woo leen du loolu c'est que dañu xamoon ni Sénégal moo soxla woon boppam te Sénégal bu soxlaa boppam président bi ko jiite bu wootee dañuy dem man maa ko tooñ maa ko tooñ maa bi ma ñëwee parce que dama fekk dama bokk ci parti yi nga xam ni dañu amoon président assemblée mu wooñu dama ko tooñ ne ko président tey jii de xam naa ni Covid bi di nga ne bu mu fi rey kenn rek waaye kontaan nga ci moom muy reetaan ne ma yow yaay yéefar Covid ku ciy kontaan ma ne ko xanaa lim la indil ay nit ñoo xam ne ci àddina defoon nga ne duñ la fekk ci sa bureau bii parce que Sénégal ci loolu la xaj mais bu fekkee ni yow animosité rek nga séq ak nit ñi su fekkee ni kaay ma tëj la rek nga séq ak nit ñi prison rek nga séq ak nit ñi ah ñun nag Bawol lañ ga ñu dëkk ñemewuñu prison de prison ku la ko yéene yéenewu a jàmm ku la ko yéene yéenewu la lu baax ku la ko nattal rek yéenewu a lu baax loolu moo tax dialogue boobu jël nañ ko ko delloo ko ko parce que wax dëgg yàlla mënuñu ànd ak moom ci li nga xam ne moom lay def yàlla def itam ñu bëggoon waxtaan ci li nga xam ne mooy euh, ñun suñu digganteeg yeewi askan wi dama dégg démb ñu ko am ko am ku ni yeewi askan wi yëg nañu jaloo yeewi askan wi yëgul dialogue je suis ferme te bu ngeen yeboo tam question yi ngeen bàyyil ma ko bu leen ko poser parce que li ma ci wax rek laa ciy waxaat yeewi askan wi yëgul dialogue fekkewul dialogue exemple bi ma leen di jox rek mooy ñetti grande chancellerie yi après le 4 avril daje nañoo gi waa yeewi askan wi ñu laaj leen ni ñu nan ngeen xam ci l'appel du 3 avril du président de la république pour dialogue bi mais dañ ko tontu ni ko dialogue dafa am contexte or contexte bii ñun dañu ni siiw ñi nekk ci sunu ci prison yi tey suñuy doom ak suñuy nit ñu génn leen ak jigéen ñi nga xam ne dañuy yóbbu seeni doom ci prison bi ñuy nàmpal ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi seen jaboot ak màggat yi nga xam ne ñu ngi leen jàpp ñun ñooñu duñu toog mukk di wax ak koo xam ne moo leen fa teg moo leen tëj foofu ñuy waxtaan ak moom mais bu conditions yi réunir ñun ñëpp xam nañ dialogue d'accord nañ ci dialogue donc ñun man personnellement boo gisee nanguwuma woon a wax ci dialogue bi dama defoon ni pour la consommation diplomatique ndax diplomate yooyu duñu laaj lu ngeen xam ci dialogue bi te ñii wax naa ni yëgoon nañ dialogue bi bañ koy wax seen kilifaa gi toog dak ñu d'accord wax ko chancellerie yi ni ko ñun bokkuñ ci dialogue kon bu ñu kenn indil benn problème dialogue bi gisuma nu ko nit di légitimer ba à dix mois des élections ci koo xam ni wax nangoogu la définir position dëkk bi sonn coono goo xam ni kenn mënu la koo wax ak ñu xam lu dialogue di coûter le dialogue a un coût le dialogue a un coût te maa ngi koy ñaan coût boobu na ko jël subventionné ko produit de de de de première nécessité ménage yi mu soulager leen man maa ngi ko koy ñaan man solennellement na ko def ci réew mi na ko def ci ceeb beeg diwlin yeeg suukar seeg meew mi xale yi naanatuñu meew. xale yi naan meew seen yax yi dëgër parce que moom moo wax ci PSM le capital humain or la capital humain fii mu ne mënatuñ cee compter yéen a ngi nii yéen see dem leen seen kër yëkkati seen doom day oyof toy naanul meew naanuñu meew donc loolu li muy def ci jaloog bi su ko subventionné meew mi rek. ménage yi am jàmm